Cheikh Mahamadul Mourtada am na ku nekk ko woon dama bëgg nga ñëw ci sama kër ga xool ko te ñaanal ma fa di ko wax ak a waxaat ba tax a jóg sëriñ bi ba mu dem ba àgg xool xool waaye ne ko lii euh, dañ koo liggéey liggéeyoon woo xam ne tey bu sawara jekki-jekki woon tàkk ci kër gi rek lii machine bi moo yëg sawara daal di daal di tur ndox mi mu fay mu ne ko daal daa mel ne kon sa kër gi tëne sawara mu ne ko jàpp naa loolu ndax ci yu mujj yi la technologie bu mujj bi la mu ne ko yow borom kër gi mbaa fexe nga bëtt sawara allahu akbar mbaa fexe nga bëtt sawara kooko jaarigul yoonu te sawara gis nga ba muy tabax këram googa mën naa am fam doon ñam doon dénk bagage ya am na ca ñoo xam ne dana ñëw nuyu leen te taaluñu añ tey wala ndekki wuñ te yaakaaruñu reer mu tabax tiim leen ca kaw ne non ba man fa indi suñ murtaba wóor nañu ne si la alal ji ko waaj jox taxu faa dem rus na ko rek te lu baax dong ci la doon dox moo ko fa yóbbu woon soo déggee ni mu ko waxee rek xam ne li waaj jor ñoru ko mbaa yow fexe nga ba te sawar